sallallahu alayhi wa sallama jigéen ñi ngeen xar ma ñu dem Pape Diouf géer ñi ñoo ma yéem Amina mu bàyyi yal na sa jàmm yàgg hmm? ba pare maa ngi leen di annoncé damay takk jabar du yàgg ah incha allah léegi tey ma takk jabar ndax troisième femme la ndax deuxième ndax première yàllaa xam mais daal damay waaj a takk ndeysaan keroog bi may waaj a yóbbu guru la fa jam yóbbu ñu jàpp ba tëj ma. Jamra tamit yàqal neen ma lu bari Jamra yàlla na seen jàmm yàgg paa yooyu maam Matar Gueye ku ko gis yóbbul ma ko suma nuyoo na ko see amee mu ne nuyu na la suma mbokki taaliba Cheikh bi yàlla na jàmmam yàgg ah baay baay gërëm naa leen yéen ñëpp ah. xaar leen ma Cheikh Sarr Zik Feeling maa jàpp suma dat maa invité suma bopp Cheikh Sarr sa yëgagu ko le 14 jour Valentin may toog ci rajo beeg tele bi wax li ma saf ak ni ma safee ku bëgg déglu ku bëggul fatt say nopp c'est pas méchant bu dee fekk na ma fi parce que <laughs> sous contrôle judiciaire laa nekk mën naa xëy rek ñu ne kaay kaay kaay kaay ne ma toog rëbës <laughs> yàllaa xam mais daal bu dee je libre xaar leen ma Zik FM wala suma TikTok bi dama koy wane live love from Gambia I love Gambian people. Oh, Ami Sisa, am not going so soon. I was just here to, to, to, to announce my, my so-called freedom, that I am free. You know, so that yéen ñi doon ñaan ngeen xam ne yàlla nangu na seen ñaan ah yéen ñi doon bëggee xam nga kontaan parce que nekkuma fi ah continuer leen bëggee rek àdduna méttiwul le retour de Cheikh Ahmed Cissé première interview boo xam ne kër ouvert lay doon wax lépp dafay doon le 14 ak Cheikh Sarr ci guddi gi DTV Xaadim Siraan après ñu programme ah suñ la leen dalee maa ak yow allah yal na seen jàmm yàgg yéen ñëpp daal kontaan naa ah xaw ma. mais numéro bu ngeen ma mën a jotee. my Gambian people let me give this number where you can reach me before I I I, I have access to my phone. plus 221 plus 221 77

képp ku ma bëgg a jot avant may am accès suma téléphone plus 221 77 372 96 96 mooy numéro bi mais nag li ma ci gënal mooy ngeen jënd garab xam ngeen ne rëbës bu naqari woon su ma génnee damay làpp mais maa ngi pataan nii def suma toxu lex ah bopp bi gën a am ñam duuf nii